jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen béggewaat bu baax a baax di leen jox seen ñoo ngi fii tey seen jàngat làmb ànd ceeg bàyyi ji bi nga xamante ne ni ah mooy loolu di nuyu ñi nga xamante ne ñoo fi toog di nuyu Père Birahim di nuyu ñeneen waa wasaare yëpp ñoo ngi leen nuyu di leen siyaar di dalal bàyyi ji li ñu war a waxtaanee li nga xamante ni mooy jàngat làmb bàyyi ji maa ngi lay nuyu Ousseyn maa lay fay euh, di nuyu suñu mbokk internet yi seetaan wasaare làmb yëpp euh, di leen jaajëfal fu waaye mën a nekk moo xam ci réew mi ak bitim réew euh, ñu ngi jugee fële ci dëkk bi sell bi di Touba Mbacke ñu ngi ñaan rek euh, képp koo xamante ni demoon nga fa ñaan lépp loo ñaan yàlla na ko yàlla suñu borom nangu defal leen jàmm def ko ci réew mi ñi nga xamante ni yàlla suñu borom daa dogal ñu bëggoon màggali euh, dem ba ci digg yàlla suñu borom dogal dogalul ñu yegg ñu def soog wala yu mel noonu ñu ngi leen ñaan ñoom it yàlla na yàlla suñu boroom yërëm te xaaree Euh, te yéexe ñu euh, di jaajëfalaat ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ñoo xamante ni euh, ñu ngi ci wasaare bi ndax gis naa wasaare TV dem nañ def religion bi ci wasaare religion bi mbokk yi dem nañ ngeen abonné seetaan ko liggéey nañ fa liggéey bu ci ay macha allah équipe bi yëpp dem nañ ñuy jaajëfal képp koo xamante ni yaa nga fa woon ci liggéey liggéey bu rafet boobu équipe bu wasaare bi yëpp ñu leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax comme ni ñu ko waxee gars yi màggali woon nañ dem nañ ci jàmm dellusiwaat ci jàmm gis nañ màggal gi neex na liggéey bi jaar na yoon mais naka ngeen déroulé ak Wassare religion bi. Hmm. parce que dafa mel di leen gisaat ci leneen lu baa jiri ñu xamoon ko ci làmb gis ko mu yor micro bi def grand boubou Sadji. ah am na ñu leen ma sa waay bi dafa mel ni temps daa am xaalis ma leen ah, parce que ku nekk rek loolu ngay ñaan te Ousseyn. Uh-huh. Euh, liggéey bi moom xam amul secret. Hmm. àdduna moom lépp loo gis rek liggéey la euh, tey ñu ngi góor góorlu ay xale lañ mais xale yu am gëm-gëm. Mm-hmm. xale yu am bëgg-bëgg xale yoo xamante ni xam nañ fi nga xamante ni teg nañ fa seen bët fas yéene nañ faa yegg di ñaan suñu borom mu kàttan nañu rek euh, ba ñu yegg ci parce que entente bi équipe bi am moo ñuy waral euh, fépp fu ñu bëgg a dem rek Ouzin dafa yomb ci ñun. Mm-hmm. Euh, lépp rek. ñi nga xamante ne nag wolof daf ne ku la abal bët fu ko neex rek ngay xool mm-hmm. ñi nga xamante ne ñu ngi ci suñu ginnaaw wóolu ñu jël liggéey bi teg ko ci suñu loxo di ñu gën a pousser pour que à ñu ñu yegg fi nga xamante ni fa la ñu bëgg euh, ñu ngi ñaan rek mbooloo mi ñu gën ñu tàllal loxo ñu gën ñu ñaanal yàlla suñu borom baax na ni ñu euh, ko defee Touba nag dinañ ko defee noonu ci dëkk bu sell bi di Tivaouane ko defee noonu ci Kaolack dinañ ko def ci bépp événement religieux boo xamante ni dafa am moo tax ñu bëgg mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéenay seetaan Wassare Lamb dem leen abonné ci Wassare Religion incha allahu rabbi lépp loo xamante ni euh, bëgg ngeen ko xam ci seen diine incha allahu rabbi dinañ n ko indi te dinañ dalal ay kilifa yoo xamante ni euh, ay kilifa diine lañ dinañ daw dalal ay kilifa yoo xamante ni euh, ñu yàlla may xam-xam lañ incha allahu rabbi di leen wax rek dem leen abonné ngeen xaar incha allah di ngeen di ngeen am lu sedd seen xol mi sax. xam naa ne waxtaanu géwél moom lu mu yàgg yàgg ci may ma leen mujj. waaw ah, gannaaw boo def nga ko xam naa ne du ma ko mën a yóbbuwaat <laughs> waaye di ma boole koo xamante ni dina ma defal benn su may gàmm ji mën koo sos. ndeysaan waaw kay Ouzin jaajëf ba lay <laughs> jaajëfal bu baax a baax a baax ndax foofu nga génn. Ah, waaw da nga ko jël maa ko allah bokk na ci loo xamante ni sama xol daf ci sedd mhm. muy Baye Pam Baye Pam nag euh, tailleur la boo xamante ni euh, mu ngi nekk rond point vingt six boo mhm. passé EDK bi rek euh, moo nekk attaque ta gauche mhm. Baye Pam nag mu nekk tailleur boo xamante ni macha allah daf ma yéene ñaw lu rafet loolu jox ma ko ci màggal bi sëñ Bas xam naa di nga dugal image bi ñu xool ko euh, sama mbokk yi nga xamante ne ay <laughs> jàppal ma jàpp boo gis ku ne daa am na ci jàpp. ba tax na nag bas dafa dànk bas a jàpp la xaaral xaaral rek li mën a bàyyi laay génne waaw <laughs> waaw waaw sëñ Bas euh, xam naa dina ko génne mu doon image boo xamante ne yére bi gis nga bàyyi paam léegi waaw nee du dagg waaw dafa bëgg a jébaale àddu la waaye ñun dañuy fo rek wasaare làmb lépp fo la rek Baye Pam nekk koo xamante ne moo ma ñëwal grand bu boobu ngeen gis bu rafet boobu nee na ma am na yeneen yoo xamante ne Baye Jili dinaa ko ci teg fépp fooy demati wax ma ko incha allah dinaa la ñëwal lu yees ma koy jaajëfal man ci laay bokk ñuy bu baax a baax li bara Baye Pam ku bëgg ñëw bu rafet bu sell boobu da ngay def 77 def 274 82 66 mooy numéro Baye Pam boo ko woowee rek incha allah dina la tegtal jaaral la fi nga xamante ni foofu nga bëgg a jaar Ousseyn dinaa la booleeg Baye mu ñawal la. ah waaw dama bëgg mu leer a ñëw te man gisuma loolu. waaw ah, la booleeg dinaa la booleeg Baye bu ñawal la. Ah, tey waaye ah, tamit boo wax ba ba pare. te du ma sant ki nga xamante ni mooy MK Cécile moom Cécile sañseel ci dàll yi nga xamante ne moom laa sol keroog ci màggal gi euh, muy sëñ xaadim sëñ xaadim nekk parcelle Assainies unité 3 boo duggee ci tali bu bees bi rek MK Cissé mu ngi la féetee seen di joor euh, moom it dàll yu yees yooyu nga xamante ni mun naa dem Touba mun naa dem Tivaouane am na yenn façon dàll yoo xamante ni fépp foo mën a dem muy moo xam muy cérémonie boo bëgg a dem rek muy ngénte euh, muy takk muy mariage moom moomu di MK Cissé dina la ñëw. waaye ba yokkal la ci rafet. Ah. couche africain yi gars yi xewoon. waaw naa ni suuf gi moom bu la so bu la sañ loolu doo dem. dina la defal dàll yu rafet te ah. moom dig na ma yeneen dàll yoo xamante ne dina ko def mais ku ci bëgg dàll yu yees yooyu rek da ngay def soixante dix huit. doy na nag deux cent numéro MK Cissé joxe <laughs> soixante dix huit ngay def def deux cent trente neuf euh, quarante trois quarante neuf quatre vingt onze. 78 239 49 91 mooy numéro xaadim borom MK Cissé Ouzin li tax ma mën koo wax. mën daal boo li tax ma mën koo wax mooy Ouzin màggal gi xëy na temps bi. Uh-huh. Euh, daf ñu xoj. ba mm-hmm. ba ba mënoo gërëm ñëpp. ndax euh, moment bi ngeen bi ñu nekkoon mais gis naa yéene bu bu rafet bi nga xamante ni am nañ ko ci wasaare. Mm-hmm. Euh, moom MK ak ak ak Pam nee na ma dinaa ñëwal wasaare gépp MK mhm. nee na dina jox wasaare ku ci nekk dina. ah dama lu ko waaye dig di <laughs> sax laa gën a soxla man. parce que ah. man bu ma indi lay père Birahim dàll rek jox na ñëpp. te Baye Pam tamit xam naa ne dinaa fexe ba mu ñëwal père Birahim ndax euh, père Birahim moom sama papa la. Ousseyn di jaajëfal bu baax a baax a baax. kontaan naa sax ci invité bi ba invité bi su dal bi daanoo rek muy jàmm. ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy bilan écrit olympique de Ngor. Mhm. ñu saison bi nga xamante ni gàtt na. mais jot nañ kee def sept hmm. am nañ ci quatre victoires deux défaites benn hmm. match nul. Hmm. bi nga xamante ne mooy Olympique de Ngor yaakaar naa mooy tête de file bi. noo ko gisee avant ñu ñëw ci bilan de Ngor Ouzin. am na ay ndaanaan yoo xamante ni ñu ngi ci écurie ba. Euh, depuis Boy moom nga xamante ni bokk na ci membre membre fondateur yi yi yi formé écurie bi ànd ay xale. yoo xamante ni ñu ngi ci woon. doon góorgóorlu te loo mën a xew mooy Ouzin Boy mm-hmm. dafa mën a bëri mm-hmm. ndaanaanu làmb la tey euh, galère na ci làmb parce que combat yu bari maa ngi fàttali am na benn combat bu mu bëri woon euh, moom ak Mame mu gaañu ci gaañu métti bi mu ñëwee toog ci plateau naan moom nii la mel mm-hmm. bu daanee ak bu daanoo yëpp moom day gaañu que combat dafay metti euh, li ko ko may na mooy jom ak fulla ak fayda ak mën a bëri parce que bëri na fekk ay ndaanaan yoo xamante ni tàkkusaan yooyu kenn du ko fàtte mais depuis mu bëree ak ki nga xamante ni mooy ama neex ba tey euh, gisatuñu ko mu ngi dem na États-Unis nag xëy na nekk na fa. diir ak kii euh, Marley. waaw Marley daan la mujjee daan waaw. ah bi mu bëree maa lay sëqatalee daw kii dàq ko mu fàq ko mu rëppkat app yi waaw waaw mu daan ko waaw wax nga dëgg mu daan maar la jëlu jëlu bu gaaw boo xamante ni maar la sax comprendul defet la du defet jàppee ko defet mm, mu doon mbër moo xamante ni champion wu làmb la mm-hmm. moom moom booy bawal euh, mu nekk faa ñeneen am na ci ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi fa woon Eh, ku ci mel ni eh, sa sa doomu nday papa Gueye olympique rek moom loolu la tudd wax tafaatin tafaatin di bëri de moom it léegi fi mu toll nii buri buri buri buri tere la koo bëre eh, ci carrière bi waaye ba tey loolu yëpp ci àdduna la bokk mu doon écrit boo xamante ni palmarès bi nga wax baax na parce que boo am boo bëree sept combat am li nga xamante ne mooy quatre victoire deux défaites benn match nul vraiment ci ci saison bi fi mu toll ay jàmbaar lañ tey ni leen ko doon defalee ci yeneen écurie nag moom la ñu fas yéene di ko def parce que écurie bu nekk dinañ dugg ci bilan wu écurie bi wax li nga xamante ni moo fay moo fay njariñ bi ak li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yoo xamante ni nekk na ci écurie mu doon loo xamante ni Ouzin écurie olympique Ngor euh, ay ndaanaan ñu ngi fa euh, li tax nag bokk na ci li am na lu ma ci jaaxal am na lu ma ci jaaxal muy am na ci ay champion yoo xamante ni ay champion làmb la ñu ngi fa mais li waral écrit bi euh, depuis bi fa Boy Baol jugee ba léegi wala boog. biñ euh, ko biñ ko gisatulee ba léegi parce que Boy Baol ba tey mu ngi ci écrit ba waaye la muy nekk États-Unis moo ëpp li muy nekk fii. Hmm. am na ci yoo xamante ni certes gisuñu ko ci xale yi. Hmm. mooy xale yi bëre euh, am na ci ñenn ñoo xamante ni ku doon bëre caatu yëmbal boo yëmbal mu tudd xeeru ngor numéro deux. xeeru hmm. ngor numéro deux. nekk na mbër moo xamante ni moom it champion ci làmb ñu bàyyi ko xel. Mhm. am na taay bi am na gabarit bi xëy na day yokk doole tuuti rek. lu ci bari ci làmb su ko bëggee incha allah rab euh, bu góorgóorloo jëmbat ci fulla fayda yàlla suñu borom mun na ko jàppale mais Ouzin xale yi lu mun a xew mooy góor góorgóorlu dafa dafa dafa jot te fi mu toll nii daanaka ñu ngi naan mbas mu jóge na fi euh, feebar bi mu ngi tàqalikoo nag ñun ñu ngi dellu si activité yi mhm. euh, ñoom mbër yëpp li père père Max Mbargane doon wax naan mbër mu ndaw du préparé wu day pare mhm. euh, ñoom it ñu pare surtout ñoom mbëri ndaw yi parce que man du ma ñaax yu mag yi mbëri mag yi xam nañ ni ñu nekk ci làmb xam nañ position bi ñu toll ci làmb xam nañ bu ñu jugee mbooloo mi leen topp yow mi nga xamante ni boobu da bëgg boo jugee mbooloo topp la da xam ne boobu boo jugee euh, bëre ji ñu seetaan la euh, gën a la yokk entraînement yi gën a yokk jom taxaw bu boo déggee saison bi combat yu taxaw rek Euh, nga xam ni euh, combat yi neex la parce que euh, ñu ngi annoncé ni kii di mbay Mbaye Yékini tëgg na combat ki nga xamante ne mooy Cheikh Tidiane Niang ak Ndongolo mm. mu doon combat boo xamante ne combat espoir la neex a mm-hmm. neex a neex a neex la parce que ñaari technicien ñooy bëre ñaari mbër mbërëntaan ñooy bëre mu doon combat boo xamante ne yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak salaam xam naa ne du ñàkk tuuti Euh, Mbaye Yékini dinañu woo ñu gën a toog yaatal ci waxtaan ci bu baax a baax a baax mu Ouzin loolu moo nekkoon loo xamante ne war euh, waroon naa ko ci mën a la bàyyiwaat di la waat kàddu moo ñëw ci li nga xamante ni mooy palmarès bi. Mm-hmm. ndax kii di xewandoo numéro 2. Mm-hmm. bëri na ci am ci ndam. Mm-hmm. ki nga xamante ni mooy fëgg la tamit numéro 2. bëri na ci am ci ndam. ki nga xamante ni mooy Siteu. bu olympique Tongo bëri na ci am ci ndam. ki nga xamante mooy toujours Péré bëri na ci am ci ndam. waaye su ñu ñëwee ci nga xamante ni ñoo ci bëri daanu. am na ci booy virage bëri na ci daanu. Hmm. ki nga xamante ne mooy benn melo tamit bëri na ci daanu. Hmm. mais ñu xool liggéey bu mel noonu kii di kii di kii di booy booy kii booy bawal. Hmm. nekk tête de file bëriwul ba teewul xale yi ñoo ngi am jom wala am courage continuer di entraîner di ko teg ci yoon ba andi palmarès su mel nii. lan nga leen xam naa ñaax nga leen sax mais booy bawal. noo ko gisee demam bi dafa mel ni ku bàyyi wala. non booy bawal bàyyiwul. parce que mbër Eh, dafa am benn benn benn benn benn benn rythme bu ñu jël fan yi hmm. eh, mu bari na ci mbëri làmb yu baree bari dañ koy def muy que ni dañuy nekk Sénégal eh, di wut komba hmm. bu komba jafe ñu xam ne am nañ famille war nañ leen a mën a dundal am nañ leneen lu ñu yaakaar da ngay dagg sa billet dem États-Unis boo fa hmm. demee mën nga di entraîner di liggéey lépp loo am nga yónnee ko sa famille parce que li père Birahim doon wax mbër dafay am métier dafay leer parce que du ñëpp ñoo mën a tukki. Mhm. tey ñenn ci mbër am na ci ñoo xam ne bu ñu tukkee dem États-Unis day mën di liggéey di yónnee seen famille bu ñu amee combat parce que boo xoolee ci diggante fëgg la ba muy dem États-Unis euh, amul combat. mais dem na États-Unis ba combat am ak euh, armée bu benn baraak fekk na ko fa mhm. mu koy préparé en même temps lam fa nekkee nag euh, moom moo ko xam waaye ak lu mën a xew mooy mu nga fa toog mu ngay liggéey mu ngay entraîné jàpp ñaamburam di dundee yaakaar di ñaan yàlla saison bi ubbi ba activité làmb bi dellu si pour mu mën a ñëw bëri contrat boobu nga xam ne am na ko bari na ci mbër yoo xamante ni ñu ngi koy def muy wane nii rek xale yi nekk olympique ngor te mënuñoo tukki nañ gën a góor góorluwaat ñu gën a góor góor góorlu bi mooy lan ñu xam ne làmb du caaxam du fo làmb dafa doon loo xamante ni lu sérieux la parce que foofu jàmbaar la boo jugee say mbokk ñaax la boo daanoo say mbokk am gàcce Euh, am euh, rus du ñu ñemee génn kon yow moom nga xamante ni yaa opté nekk mbër kenn dugalu la ci nga nga nga jël sa volonté bu bopp ne damaa bëgg doon mbër lépp loo xamante ni fulla la ak fayda ak entraînement war nga koo mën a yokk te écrit boobu géej jege na leen salle de musculation jege na leen entraînement pour am doole yomb na leen waaye olympique ngor parce que euh, géej gi ñoom géej gi presque ci géej gi sax lañuy la ñuy yenn. làmb daa bokk ci ñuy def. làmb daa bokk ci ñoom ndax mhm. boo xoolee même bu dul olympique de boo defee doxee tefesu Ngor bi doo dox cent mètres gisoo xale yu jàppante di bëre. Mhm. moo tax xale boo ci génnee rek mën na xeex mën na bëre. Mhm. moo tax ñu leen wax nañ gën a góorgóorlu palmarès su baax na waaye nañ gën a liggéeyaat comme ni ma la koy waxee chaque jour rek ren moom saison yi xale yee ko moom ndax xale yee bëre xale yee daan xale yee bëre xale yee daanu kon nañ waajaat xam ne saison deux bi ma gis saison bu naa neex la nekk ndax boo gisee combinaison yi nga xam ne naa taxaw nga xam ne gars yi dañoo namoon làmb waaye luñ ko namoon namoon namoon namoon. Balla Gaye Bombardier Bombardier. <laughs> revanche bi. xasee ba la saaj ba réer la de. fuñ koy fuñ koy fuñ koy fuñ koy wëree. saaj ba fañ koy wëri jéem a jaaxal. parce que ñoom ñaar ñooñu Ousseyn. Euh, te dinaa la te dinaa ci yokk leen. Mhm. ndax Bombardier dafa mel ni ko dese bariwul. te defe naa ne du ko bëgg a génne ak defet waaw ñu bari nag euh, am na ci ñoo xam ne certes ndeysaan euh, xamuñu euh, wala bokk xam nañ sport mais dese nañoo xam lamb mm-hmm. parce que dégg naa ci ñenn ñi ñu naan non Bombardier bu jëlee Balla Gaye làmb ji daf ko daf ko nar a kombi Bombardier Bombardier moo mag loolu te Ouzin Bombardier même combat saison euh, li ko desee ci làmb donte bariwul mm-hmm. euh, moom mu ngi dundee yaakaar dem nekkaat ci beneen sport parce que xelam chaque jour mu ngi ci bàyyiwul MMA bi parce que te bu sañoon contrat wu làmbam fu mu toll nii ñu yokk ko. quarante cinq nee na nee na quarante cinq ans dafa tuuti. dafa tuuti dañoo woon bàyyi ñuy bëre ba nga ne mënatuma nga dem toog ndax boo xoolee kii di Balla Gaye bi muy bàyyi ñëpp ko naqarlu mm. waaye dafa fekk mu nekk loo xamante ni kenn sañu koo teggi. Mm. moo tax mu mu mujjee génn làmb ji moo tax Bombardier mii ku ne na dafa dafa nekk mag. Mm. da nga gis mu si mais dafa am ñoo xamante ni euh, malgré seen seen seen seen seen seen kii euh, nu mu tuddati Euh, seen seen seen seen nan laa ko war a mën a waxe waaye seen taxawaay ci làmb hmm. ba tey des na parce que ñu ci bari euh, boo xoolee Tyson dafa bàyyi hmm. bëriwul ba ba ba am quarante cinq ans mu bàyyi hmm. parce que dafa xam ni kat àpp bi mu amoon ci làmb jot na maa ngi bëre maa ngi daanu euh, mag mu ngi may dikkal te jàpp naa ne mënatuma daj coono yi ma doon daj ci làmb mu bàyyi ku ci mel ni Yaxya Jóob Yékini bi muy bàyyi quarante cinq ans matul parce que moom it daa dem ba jàpp ni am na ñaari defet xam na ni làmb ji fi mu toll nii la mu mënoon mënatu ko mu jaar ci porte bu mag Bombardier tamit bu demoon ba yëg ni mënatul parce que Ouzin Bombardier ba loo mën a xam xale yi am trente cinq ans trente six yemuñu ku ci bëreeg moom bu ne la yem fii nga yem ko foofu kon ku mel noonu ci làmb ñun de buñ mënoon dañuy ñaan rek euh, ñu gën ko bàyyi ci làmb euh, mu gën a nekk fee xale parce que làmb tamit ci kaw manqué nañ ay poids lourd. non dañoo bàyyi comme ni ni ko PBA waxee rek ba ba na bëggatuma wala doyal naa nga bàyyi comme ni ko Zos defee Zos xale la. Hmm. waaye bi mu demee ba xam ne mënatul dafa jël lenge ndànk teg ko te xam ne lu dul jàmm jàmm ko gën. Hmm, fa muy jógee fa dafa jeex fa muy jàmm jàmm lu dul jàmm jàmm jàmm ko gën. Hmm. ba tax nag noonu lañ ko àndaloon ci jàngat làmb ak olympique de Ngor di leen di jaajëfal looy tàggatoo. ki dàqa ñaw ci àdduna bàyyi paam la tudd ki dàqa defar dàll ci ci réew mi xaadim la tudd mooy borom MKCC ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb